ndax kilifa bu mayee njabootam woyof woyof ba mu mën a def lu mel ni ñaanal ko jox ko digalam dana jaadu njaboot ga sant Sëriñ Babacar Si daan na wax ni cant feeñal jëf la seeneen jëf yàllaa ko digle ngir ki ko mënoon gën caa soññu ki ko mënul woon jànge ko ca ñu feeñal cant jiital ko dana ci ñëw ci lu gën jëmale ko ci borom mbooleem ñi mu seqal liggéey bi le président Macky Sall yónnee na ci kër yépp na mu ko daan defe jaraangay gàmm ngir barkeeloo ko ci barke Yonent bi sallallahu yàlla na ko barkeel dal ak mbooleem ku ko bokk la ca topp ñu koy sant mooy sunu baay Cheikh Hadji Malick Abdoul Aziz radiyallahu anhu muy wéyjur kii toog ci sama wet Serigne Cheikh Omar Sy ànd naag rakkam di sëriñ Pape Abdoul Aziz Sy di sëriñ Papa Abdoul Aziz nun maam la ci nun ñoom sëriñ Maodo ñooy wax papa waaye nun nag maam Cheikh Hadji Abdoul Aziz lañ ko ñu ñëw bokkandoog ñun tënk gi sunu bàyyi ñi nii ci sunu gannaaw Serigne Habib Sakho ku ne xam na li mu doon ci nun nijaayam baayam maam tafsir Ibou Sakho moo nekkoon sunu maam ci wàllu